Euh, président finalement est-ce que euh, mën nañ wax ne ne c'est un dialogue boo xamante ne ne ne mën nañ ko considérer comme l'avenir du pays dépend de ce dialogue ah, que on est dans ko di ko wax mm-hmm. Mm-hmm. parce que aujourd'hui kii kii mën a def jéego rek wax naa ko fi avant mooy président Macky Sall comme il l'a fait mm-hmm. mais jéego bi mu teg aussi euh, dafa delloo lépp acteurs politiques yi. mooy par rapport à la à parce que moom moom moo parce que élection mënta am. te moom convoqué wul reconvoqué wul le corps électoral. te léegi corps électoral bi aussi mënoo ko convoqué te amoo date bi ñu fixé pour élection bi léegi li ma comprendre mooy moom il refuse unilatéralement de fixer une date léegi ce qu'il cherche mooy que la date puisse venir. à la rencontre bi nga xam ne moom la convier acteurs politiques yi léegi nag si cette rencontre là dès le départ mën naa ne est est biaisé parce que le collectif des des dix-neuf nee nañ duñ dem mm-hmm. une partie de la société civile aussi dafa mel ni nee nañ duñ dem donc tu vois tout de suite la la difficulté donc est-ce que ce qui va sortir de ce dialogue là sera sera légitime on peut se demander cela. Le problème consensus mooy posé wu. c'est ça. Mm-hmm. est-ce que li fay génn. ça mën nañ ko tëgg. loo xam ne day engagé Sénégalais yi. xam nga loolu problème moo tax moo tax am légitimité parce que ubbi nañ buntu yi ñëw ñëw ñëpp. ñëw leen ci dialogue mais ku ñëwul amatoo pour critiquer quel que soit lu fa génne même su fekkee nekkul ñoom ci seen faveur il va falloir ñu accepter ko parce que woo nañ leen. kaa leen ngeen toog kenn tëjul leen buntu yi su li fa génnee ñi ko jël même buñ dee ñett nit lañ. ñett ñooñu li ñu jël ñun moom la ñuy nangu ni lii moo am parce que fii ak dialogue bi di am te lu bunt yi kenn. voilà man la demuloo da ngaa téye sa bopp li fa jugee da nga koy nangu comme ñun. et de préciser que avant et de ne mën nañu dem ci élection yi avant mois de join comme ni ko président waxee. waaw mhm. mais mais am na leneen lu am solo aussi. président Macky aussi. il a une responsabilité historique. boo xam ne aussi moom war na ci xar tànk tubéyam. Mhm. mooy. jamais dans l'histoire Sénégal di vivre li mu nar a vivre nii te loolu aussi moi je pense que war na bañ mu tombe ci ci magistère am tey jii il doit se mobiliser il doit tout fair mhm. pour que impasse bi ñu nekk ñu dépasser ko parce que loolu aussi moom la moom la incombé en premier loolu tamit il faut ñu wax ko parce que moom lañ fal wax naa léegi ne conseil bii ñuy wax sax moom moo leen fal mhm. mais moom la sénégalais yi wóolu fal ko te biñ ko falee aussi ki ko jox lenge yi daa xaar ba mu ñëw. Mm-hmm. jox ko mu jox ko lenge yi kooku sax ñaanal ko soog a génn bàyyi ko. mais tey aussi moom moom responsabilité am la mu def tout pour que dëkk bi aussi impasse yooyu ñuy wax ñu dépassé ko mais aussi vacance boobu ñuy wax. ci pouvoir bi ñu bañ fa yegg parce que loolu aussi ce serait aberrant di dem ci situation boo xam ne même notre constitution sax prévoir ko après conseil constitutionnel mooy jéem a xool dan lañ koy gérer waruñu yegg foofu moo tax nag moom il doit même même c'est vrai que ces seize la se sont braqués mais lui c'est le président il peut toujours prendre sur lui la responsabilité woowaat leen pourquoi pas woowaat leen ñu toog même su dee ñoom day wax ak ñoom à part au moins mu déglu leen ñu échanger keneen ku réfractaire société civile boobu bëgg a wu mu woowaat leen parce que loolu responsabilité léegi loolu li ko koy may mooy moom bokkul bokkul na c'est vrai que am na am na fu mu far hmm. moom président Macky Sall am na fu mu far peut-être bu doon sagoom sax candidat mooy gagné hmm. mais mais gis nañ ne am na beneen niveau bu mu bu mu yéeg hmm. démb bi muy wax donc niveau boobu nag la war a toog attaqué sax na woowaat. ba ba vraiment ñu xam ne. gars yi bëgguñu ñëw mais il faut tout faire pour pour pour écouter tout le monde pour échanger avec tout le échanger avec le conseil constitutionnel nga xamee ne bu au sortir de ces échanges là. Sénégal dina am aussi solution par rapport à ce problème parce que c'est un problème c'est une crise parce que nu ñu dem ci élection boo xam ne. conseil constitutionnel mi arbitre suprême bi dafa mu dañ ko indexé ko corruption. xam nga démb président Macky Sall nee na am na lu ñu mën a wax. lu ñu mën a wax am na lu ñu mënta wax. loolu tamit c'est important. Mm-hmm. peut-être que moom aussi. am na niveau d'information parce que je ne mais xanaa loolu xaa mënul nekk mënul mënul randal élection yi. ci ay ci ay ci ay ci ay lu teguwul ci dara dara dara dara c'est pas possible ça. c'est président. donc bu ne am na lu ñu mën a wax am na lu ñu mënta wax. donc on suppose que donc il y am na lu sérieux lu nekk ci biir. donc loolu yëpp nag il faut que nit ñi jël ko en compte. et puis beneen affaire bi mooy saisi aussi il faut que ñu yaatal dënd tuuti. Hmm. c' est vrai que nag ce serait peut être. kenn du mën a nangu ñu ñu demaat ci beneen élection boo xam ne day am ku ñu recalé seen biir. loolu moom est que dañuy bañ wax na dañuy bañ li dal. non loolu mënul nekk. coupe d' bi. xam nga xam nga Côte d'Ivoire dañ <laughs> ko. waaw loolu mais loolu am na dañuy bañ kenn ci ci mais ñoom tamit daal di ñëw di jàll. quel soit alpha peut-être ñu doon demaat ñoom moom kenn kenn leen kenn mënu leen laisser à terre c'est pas possible à moins que mais gis nga tey solution bi daal pour man gars yi na ñëpp ubbi seen dënn yi. te xam ne ki war a fal suñu borom tànn na ko bu yàgg nag. coow li coow lee fi nekk rek. ñun ñoo xamul dara rek. Mhm. waaraate wuñ nag mhm. yow Bamba waaraate la waaraate mais loolu mooy dëgg gi aussi. cest à boo xamee ne kenn mooy fal. Mhm. coow li ñuy wax ni yëpp kenn kese mooy fal. te kooku peut-être ñun ñoo xamul. mais loolu boo xamee nag mooy da ngay gën a ubbeeku quoi. mais enjeu yi parce que il faut que les gens se mobilisent pour trouver une solution te solution mënul génn lu dul ci waxtaan ak consensus parce que date bi tamit mais mm-hmm. président mënu ko jël unilatéralement il refuse de le faire d'ailleurs oui parce que peut-être moom tamit bëggul essuyer derrière des critiques mm-hmm. lépp lu ñuy defati mm-hmm. ñëw leen ñu defandoo ko ñu dégg dem yóbbu ko conseil constitutionnel mu valide ko comme jël naa benn décision ñu kase ko am na président aussi taxawaay boobu la taxaw mais au-delà moom it na fexe ba ñu trouver solution ba nga xam ne foofu foofu noonu nit ñi tiit duñ fa yegg. c' est important mais au-delà de ça euh, gis naa ne am na ci spolio yi ñoo xamante ne ba tey tam euh, waxuñu lu leer concernant ci dialogue bi aussi euh, Alassane parce que waxuñu ñu dem ci report waxuñu ñu changer processus donc finalement doo comprendre ndax dañuy bëgg ñu continuer processus wala ñu casser processus bi aussi. nga aussi nit li ngay def mënoo nettali gént jàmbur. parce que pour man dama gëm ni dans la vie il faut être courageux. et man loolu laa mës a gëm. moo tax assumer man bi Pa PDS euh, doon wax fii am naa grand maa ngi koy nuyu grand Issa saa yu ma waxee PDS mu ne ma ma ne parce que dama bëgg aussi booy lépp looy def rek nga assumer wu c'est-à-dire il faut pas aussi se cacher derrière. pour pour envenimer la situation. parce que aussi Sénégal lañ nekk c'est-à-dire li ma wax la rek le peuple est en avance par rapport aux acteurs politiques mais les gens ils comprennent ils décodent les messages. moo tax ma ne en politique saa dañuy dañu weesu politique boobu nga xam ne da ngay ñëw tey déggatoo sa discours yi nga xam ne waaye su ngeen ma falee dinaa leen defal kii. Euh, amaloon yooyu c'est révolu parce que da koy wax sa nit ñi dañ lay dem Alpha bu mu ñëwee fii les gens ont fait euh, benn moment de théâtralisation ñu dem ñëpp téeméer.

loo ci fekk nga xam ne lii la au moins ñu xam ne nit ki lii la gëm mais vouloir souffler le chaud et le froid des tu tu